enquêtes yi ñu ci war a ubbi kan mooy am intérêt ci deew moom ki nga xam te moo di am moo moo jaaxal ñëpp kan moo war a am intérêt ci deew Moussa Faba am kan lay crime bi di profité moo est-ce que crime am na buñ ne du mort naturel waaw dama ne est-ce que am na danga may forcer ma gëm ko non non non du tout dañuy man nag man dama jàpp ne suñ borom ma ko soxla jël na ko autopsie bi lu mu génnee foo koy def ah mais eh, kayit yi mu jógee France ñëw nag foo koy def. yan kayit. ah yow ah néew dina jógee yéeg ci avion noonu rek sans kayit. Oh, mais médecin yow ndax médecin xalaat na faj nit ba mu faatu du bind. du ko bindal kayit moo tax ma lay laajante kayit parce que. waaw yow ma lay laajal ban rapport autopsie anamu an rapport autopsie bi. yow da ne amul. an dama ko gisul laa la wax. bu ma sosal. te mënoo gëm mag lu sos sëriñ. doo gëm communiqué procureur aussi. ah. Mm-hmm. fas nag sareet sareet jiitooti na fas. mooy. rapport autopsie yi fi daan jaar day wax dëgg yàlla danga daan toog ci presse bi nii yow da nga koy mën a liir sax waaye nag tey nag affaire yaa ngi bëgg a yàgg te kenn mënu koo liir war nañ mën a xam dañ koo pomp dañ koo dóor kuur dañ koo dóor jaasi dañ koo xoj wala wala wala xanaa nag dëgg-dëgg ñun sénégalais war nañ xam nag suñu doom ji lan moo ko yóbbu mais la moo tax ñu ne dañuy ubbi enquête def ay investigation waaw bii nag daa bii nag bii da daan wuute yi fi jaan jaar ñun dañoo gis bakkan bu masaan wadd daal rapport autopsie bi danaan fàng moom nga koy liir digg fajar nga ko daan liir nii sax kay lu fi changé. est la aussi am na si yenn yoo xam ne rupture ba ci sans transparence rupture day am transparence rapport autopsie ah man de jamonoy Ablaye Wade su ma la déggee da jàpp ne. non man man appam moo jot mu dem. waaw kay man de lii laa jàpp pour man appam a jot dem na parce nag man xam nga. xel mu rafet rek laa ci demee xaw ma dañ koo faat xaw ma yàllaa ko matal. Hmm. waaye li wér te wóor daal rapport autopsie bii ñu ne médecin bii moo ko def ma gis ko boobaa dinaa mën a xam waaye nag wax dëgg gisaguma ok te wax dëgg yàlla procureur communiqué ñaari communiqué yi laa xamul daal bu mu bu mu ci moom daal signature yooyu booba ma jaaxal. signature ñaar dañoo gis ñaari signature ak ñaari communiqué damaa xamul bu mu ci moom nag. xam nga nag loolu. mais mais xam nga parquet dafa am euh, notion wu xawma lan indivisibilité. foofu substitut procureur mën na signer bu fekkente ne procureur nekk fa donc loolu moom. Ah, am parce que yu bëree fay ne. voilà si ñaar si ñaari nga xam te moom moo différente mais euh, Abdou Nguer. man li ngeen di wax nii du dëgg. yow li ngay wax ni Serigne du dëgg. eh procureur de la république. kese moo war ñaari fan. Hmm. déedéet benn fan la ñaari signature yi génn. non samedi ak dimanche. waaw samedi ak dimanche. kon moom daa bougé woon samedi am ko toog dimanche. bàyyi leen di ñu cokkutaan quand même. neel am na ku comme am na ku def li tappale di jéem a gëmloo nit ñi leneen. moom benn la ci mën a moom Abdou Nguer li nga wax nii. non mu non moom. nga foog buñ nga foog buñ jëloon benn benn communiqué. est moom yàpp nañu xaaral non pardon ma laaj la buñ jëloon benn ko parquet. dina def 24 heures te parquet indi moom lay neex rek muy nit yi leeral dama ne. non bu ko defee kon. Mouhamed lay doon Mouhamed lii ñu gis samedi dimanche. dama ne lii ñu gis samedi ak dimanche nga wax. Hmm. benn la ci man a moom. mun tam moom ñaari yëpp de. lu wund loolu. mooy liñ ñu la expliqué rek. Hmm. xam nga bu dee vacance. man nga ne procureur dem na vacance am na ko remplacé. waaye samedi ak dimanche. bàyyi leen caaxaan yi yéen tamit. xëy na Serigne ñaa di des. di non non yéen bàyyi leen mais Serigne man man laaj. xam nga yéen bàyyi leen Ba te xaare ko àjjana. mais hmm. yàlla mu ngi jax-jaxe ci xelu sénégalais yu bari. te bu rapport autopsie bi génnoon. yow mii nga liir ko Serigne mii liir ko. keneen liir ko dinañ xam médecin bi kan la médecin bi ko kii kan la boobaa sax au moins di dara ñu ne ah lii moo ko dal wala lii la lii la mais loolu sénégalais seen bopp na ko logique pour logique est-ce que rapport autopsie war na taxawaalu ci mbedd mi ah tam yàgg a taxawaalu ci mbedd mi mais moo tax ma ne la lu duuma ne la rupture peut-être moo am ah kon ñoom ñoom nabu lay dinaa ci ñëw sax fin kii bi ñoom nabu lay rapport autopsie bi génn ci ñoom Aziz ñoom Aziz génn génnul ci mbedd ma ñëpp di ko liir ñu leen wutale bakkan du bakkan waaye nañ bàyyi cuqutaan yi suñu xel yi tamit d'accord alors euh, Serigne Niang man question bi ma am en village la moom mooy bu ñu sukkandikoo ci lu autopsie bi génnee communiqué procureur kan mooy profité wu kan moo am intérêt à ce que Mouhamadou Moustapha demee ni mu ni ñu njort ne noonu la demee comme te nee nañu du mort naturel. waaw mais xam nga mbirum Moustapha Ba. amul lu extraordinaire. Hmm. lépp c' est dans l' normal des choses. Moustapha Ba c' est tout à fait normal que le procureur santaane autopsie ñu def ko parce que le ministre Moustapha Ba. oui mais c' est le dernier ministre des finance de Macky c'était pas un homme ordinaire il occupait un ministère tellement stratégique et important pour cette république hmm. léegi bu génnee àdduna bu génnee àdduna procureur gis ni génnuk àddunaam am na loo xamante ne xaw na ci leer leeru ko am na lu ci lëncu waaye mais procureur du santaane ñu def autopsie non procureur gis ah, na nekk lu normal. moo tax ma ni c'est dans l'ordre normal des choses non procureur waxu la loolu la gis de. dama ni nga ne médecin may ma ñëw may ma taxawal rek. procureur du autopsie. waaw dama ni day santaat loolu laa wax. damaa wax ni procureur gis ci day mel ne procureur ko gis. ah damaa wax ni procureur est-ce que dama wax loolu Mouhamed. loolu nga wax kay. ah xam na genre ngeer gi. Hmm. no si loolu nga wax. bul yàlla ma yàlla baal mais dañu xamul droit. mooy li ma doon wax rek moom nee na passif dañu am ay xar loolu war na ko nangul ne Yérim Seck noonu la amee ay bëy qui n'ont rien compris te moom mii ca la bokk. ay bëy yu am si kii yoo xamante ni xoolal. Yérim la ñuy xaar mu wax ñu. mbéy ci kawam moom jël ngeen ko ba pare mënatu leen koo dab. tu as hmm. léegi nag problème bi mooy. dañoo jàpp ni lu musta am rek. Sénégal yëpp xare la ñuy waxtaane moom warta am boobu moom jàll na ba pare. Hmm. dañoo jàpp ni buñ gisul autopsie jàpp nañ ni quelque part la loi n'a pas été respectée. xam nga da ko poser une question stratégique mu daw loolu. Hmm. mais autopsie kay si yenn circonstances yi kay ki de droit lañ koy jox famille bi jotuñu ko. yëguma ko de tey tey tey tey ci doo liir moo tax. Hmm. yow xam nga ni man je lis pratiquement dix quotidiens par jour di xam li xew si xew réew mi yépp samay quotidiens ngi nii. bi ma duggee fii nga ma fekk ma toog ma tax samay quotidiens di liir. Hmm. xamaleen nañ ñu nii rapport autopsie bi famille ba jot nañ ko. jot nañ ko xam nga dañoo tàmmoon si régime président Macky Sall Ousmane Sonko feebar nekk hôpital ñu wasaare kii bulletin médical am. divulguer secret médical loolu lañ tàmmoon moo tax nag ñu jàpp ni c'est tout à fait normal que autopsie bi war nañ ko fësal moo tax bi ñu ko gisul. waaw léegi lu tax ngeen fësal baabal nga balaa déglu ma wax rek ñu jàpp ni ah kon kat nguur gi daa am lu muy nëbb. Hmm. waaw léegi lu tax ngeen fësal Aziz Dabala waroon nga am honnêteté ak modestie yu wax ni. rapport autopsie bi jox nañ ko jabaram jabaram entendre luñ ko dem. bien sûr ak benn garde rapproché ak benn garde rapproché aide de camp. tu hmm. as vu léegi nag. manipulation bi famille bi jot na ko. attends lan parce que am na ñu ma ci xam de. waaw dama la ne dama ne la xam nga man waxuma samay wax. Hmm. dama ne la am na ay xibaar ay quotidien waaw yu ko xibaar te du benn quotidien du ñaari quotidien yow journaliste nga. am na quotidien yoo def fii seen revue sànq. gi yor naa si ay quotidien ñu ngi fii mën naa la ko génn léegi. léegi léegi c'est que ces genre de guerre mooy ñoo xamante ni bu ñu ñëw si plateau débat mbedd li ñu indi xam nga débat mbedd mooy lan. Hmm. <laughs> dangay ngay dem toog si jaaykatu café bi fii daje fa ak cinq personnes. Hmm. ñu toog di waxtaane politique nga buuf lépp rek indi ci plateau. te doo ci vérifier dara. Ah, ñun nag ngeer am na ay machine am ba nag nekkuñu ci niveau boobu xam nga si ban hmm. niveau lañ ne. moom mi xam na li may wax xam naa loolu du ko weddi. fa ñuy daje léeg-léeg matin ba. benn maa ko fay njëkk bu ñëwee fekk xam na fa may fekk ma toog xam na la laa fay def samay quotidien laay teg di documenté wu di xam li xew pour li may wax mu nekk lu factuel mais nag tel n'est pas le moom bu ñëwee rajoom lay yor nekk si waxtaanu boppam nekk si leneen fàtte na ni sax dafa war a def plateau war a respecter Sénégalais yi war a wax loo xamante ni lu leer lay doon lu factuel lay doon lu <laughs> crédible. Eh, reetaan daf maa jàpp est-ce que defu ko à l'avance aussi. non xam naa. c'est que seen seen portable yi lañ yor. da ngay théâtre ñiy def émission yi maanaam ñoom bu ñu toogee si plateau ma wax la benn secret. Hmm. bu ñu toogee si plateau du ñoom ñooy def émission kay def émission xoolal nekkul fii yëpp. Hmm. seen jëmm fi toog rek est-ce que comprendre nga baax. Hmm. maanaam ñoom boo leen invité ci plateau. oui du ñoom ñooy def plateau bi ñooy def émission. am na keneen ku nekk si ginnaaw. maanaam am na keneen kay def plateau ba. ma nga feneen. waa ngi reetaan sax. du comprendre nga li ma bëgg a wax. Hmm. maanaam li ñuy wax yëpp. dañ leen koy dañ leen di guider ak dañ leen di orienté. tey boo jaaroon nii laaj leen benn laaj bu automatique. Hmm. bu xaw a génn kaar bi duñ am réponse am. <laughs> est-ce que léegi am réponse am duñ am argument xam nga lu tax ma wax loolu. Hmm. dafa bari moom ñu muy liggéey lool. ñoo xamante ni man yàgg naa toog suma kër. di def émission di leen defal émission te ñoo toog si plateau. Eh, reetaan daf maa loolu leen daal ñoom ñii. Eh, avec ah, ah, ah, sa kër ngay toog ñoom ñi nekk ci plateau yi yow nga leen di. envoyé ma leen di dimbali. ah Mohamed. est-ce que mm-hmm. parce que journaliste bi <laughs> question pratiquement bi mu laaj ngeer boobu lay jëm si yow boo moytul boobu la lay laajaat. Mm. léegi nag entre temps bu la ko laajee rek dóor nga sa SMS waa ji est-ce que dégg buy ñëw si yow day fekk yow. parce que WhatsApp yi lépp gaaw nag. nañ waxante dëgg. Serigne c'est excellent. 30 secondes. man bu ma laajee Serigne. benn question précise balaa muy pare am na ku nekk fële xam ne ne question boobu laay laajaan ngeer. ngeer moo ko koy dóor. Euh, est-ce que lii la laaj. wax ko ko est-ce que c'est des gens <laughs> orientés ci plateau yi. xamuñu lu ñuy wax léegi gis nga ni ci wàcc wàllum yoon mi ngi jaxase. Abdou Nguer tey mosul fréquenter benn école de droit mooy toog des fois ci ay plateau di wax ni magistrat yi war a liggéey di wax ni juge yi war a liggéey. yoo koo xamante tu n'as jamais fréquenté une école du troit mais war na mën a am intelligence su gëstu quoi téer la hmm. te téer bi muy def sax nekku si professionnel. yére bi ma sol. Hmm. su ma ne woon ñaw ko du ko ñaw parce que mënu ko moom mii nag ku war a sant Sonko la. yaa ngi sànni xeer ku mën a fayu nag sëriñ may laaj non non <laughs> attends. Ah. Abdou Nguer mii. Ah. ku war a sant Sonko la. Ah. kii heure bu jullee fajar. ñii ñaanoon Sonko moom war na ci bopp. parce que xam métier tailleur la yoroon métier ba doxul mu dugg di attaqué Sonko un deux trois laaj ko ñaata weer ñaata ñaata ñaata lay fayeeku par weer ci saaga Sonko rek xaj Sonko kon yow ci barke. Sonko sax ñaw ñaw bi doxul. ñun xam na abu ngeer dafa mos a sol yëre bu mu ne la moo ko ñaw. non est-ce que yëre jigéen lay gën di ah? ñaw. Abdou Ngeer mii. Hmm. dama ne la Abdou ma sol wax naa la ko su ma ko joxoon du ko ñaw. du ko ñaw téyeer yi bokk si ñaw yi gën a yomb yi téyeer yi def. d' accord justement sama question bëgg naa nga xuusi <laughs> bu fekkante ne li ñuy junj am na kan moo ci profité wu. c' est à dire waaw mais dama kan mën a njort ne moo nekk ci ginnaaw. bu fekkee ni état la mu soupçonné. parce que état mën na si ami intérêt. Hmm. état mën na ci am intérêt laa wax. Hmm. parce que rappelé naa la kii était l'homme ak la la doon occupé la la doon incarné maintenant nag quand l' état juge nécessaire. Hmm. c'est parce que tout simplement état am na lu mu bëgg a xam par rapport ak mbir mi. parce que ba dem nañ comme bu fekkee du mort naturel état mun na si am avantage mun na si am intérêt en tout cas état moo ci am intérêt moo tax mu sàkku. maanaam pour mu leer. pour mu def autopsie pour mu leer. parce que wax naa la waa ji te yàggul dara ci conférence de presse Ousmane Sonko daf ko tudd. ci affaire falsification. Hmm. de chiffre et cetera tout ça waxuñu ne am na nag. Hmm. parce que ñi ko war a àtte dinañ ko àtte. dina dem dinañ dem. Hmm. mais jàpp naa ne bu état tey famille bi taxaw ni soxlawuñu autopsie nañu jox suñu corps ñu dem suuli ko état bi taxaw ne day def autopsie c'est parce que tout simplement y a anguille sous roche am na lu ci état bi jox kon kay am na lees waxut. Hmm. c'est ça d'accord Nguer. Euh, mhm. da intervenir ci pig yu mu la jot a sànni. ah moom de sànni wu ma pig sax dafa ma doon sosal. ba pare jot jot na jot na sulli benn <laughs> mafia. waaw ah, xam nga <laughs> moom nee na peut-être toog ci plateau wóor na yàlla suñu borom lépp lu luñ lay waxal. Hmm. ñoom lay ne. maanaam li ñuy def lañ lay ji. ba ci seen njiit sax la muy def lay ji ñeneen loolu maanaam ñëpp sax comprendre nañ affaire chaîne bi ni mu demee. plateau bi dama fay dàq ko ne fii damaa dem ba ne leen ba taxaw fii ne leen fii maay borom. Hmm. question pièce ak question technique ak question bu mu mën a doon man li ma nàmp dama koo complexé wul mooy olof. droit sëriñ xam naa ci loo xamul. mais certificat médical bi li ñu ciy wax weer nu mu sax rapport autopsie bi li ñu ciy wax. du du waxuñu ci droit ci affaire transparence lañ nekk yow yaa ngi dugg sax ci affaire droit ak rapport autopsie de transparence ci lañ ne mooy sénégalais yi ñoom ñi nga informé ne diw nii déwul xam nga yow xam communiqué da communiqué bi ku ñu ko adressé presse bi loolu mooy yëgleel leen ma ko. na ci askan wi jot. na ci askan wi jot. askan boobu ñu ciy jot moom mii toog nañ. ma toog ak rédacteur en chef source a bi mu ko bindee dama ne ko fan nga jëlee xibaar bi mu ne ma ci procureur ma ne ko ndax am nga rapport autopsie bi mu ne ma déedéet ma ne ko loolu ndax mas naa am mu ne ma musta am fekkee na ko bi ma koy laaj mu ne ma loolu musul am rapport autopsie kay da nga ko doon am nga doo ko bind article bi ma ne ko kon tey defoo sa liggéey ni nga ko war a defee dama ko critiqué ma ne ko dañ la waroon a jox nga téye parce que da ngeen di informé. information loolu kese doyul information bi dafa manqué. mais am na droit aussi yem ci ñu ko procureur jox. xam nga procureur de la république la ñu wax. d' accord mais man tamit am naa droit def samay critique ñoo baax xam nga lu tax. dina dimbali bépp sénégalais buy dem ci bërëb boobu wala ngay dem France wala ngay dem ci fa fa mu ko dale hmm. nga moytu. wax dëgg yàlla. Hmm. dina tax bépp sénégalais tamit nga xoolaat li ngay li bu dee lum lekk la nga xoolaat li ngay lekk bu dee lum naan la nga xoolaat ngay naan ak fa koy naane man mi nga xam ne da tubaarkàlla fu ne laay lekk lu naa xoolaat mais yooyu yëpp day fulu sama bopp man ba tey jii. ku bëgg restaurant nga commentaire yi dañu naan ngeer si restaurant rek ngay dégg ba tey jii man Abdou. boo ma laajee lu yóbbu Moustapha Ba lu ma lay wax xamuma ko wa waaye nag du ma ne procureur nee na parce que information yi ma jox doyu ma. mais est-ce que tamit foofu duñ nangul procureur parce que bi mu njëkkee génne communiqué daf ne même xaaral ma daaneel noonu man li ñu koy nangul mooy bi mu hmm. njëkkee génne communiqué daf ne jot na ay renseignement yu koy wax ne peut-être déegi am na lees waxul dafay suspecté que ne lu mort naturel. mu def autopsie. autopsie information capital bi ñu ci war a mën a jàpp moom mooy dégg du mort naturel. waaw d'accord man xoolal ba tey xam nga ba tey néew ma ko. xam nga loolu ko waxoo dëgg. Hmm. néew ma ko li nga wax du dëgg. mais daal da nga a jot ci rapport bi yow. non non man bu ma ci jotul na ci am ñu ko jot taskatu xibaar yi leeral ñu nañu eh xam nga dañ naan kii hémorragie interne moo ko rey kii dafa lekk nàngam. Hmm. kii kat dañ ko torturer kii dañ koo xoj kii rapport yi nii lañ ko doon exécuté. mais kilifa gi ñu génne détails yu. non daf maa doyul xam nga nag léegi kilifa. cest na nekk kilifa yow te du ma doy. doy xam nga affaire su ma nee laa doyoo ma. man toogu ma fii ma ne leen procureur doy doyu ma. nga ne ma lu tax man la jomaay ko ku jomaay nommé doyoo ma. Hmm. aw ma ci sañ-sañ. am naa ci sañ-sañ kañ bu wér. jeex na léegi nag su ma ne laa doyoo ma hmm. lépp loo may jox comme xibaar sañ naa ne ah lii doy matul nga ne ma lu ci manqué ma ne la ah daa am yu daan xew nii lañ ko daan gisee hmm. léegi bu xewaatee te gisee ko nii léegi lu tax gisewuñ ko nii loolu nag ay question la yoo ah. xam ne nag dafa laaj tontu tey jii Mouhamed bu dee dama daan ñëw nga may nuyu di saafoonteeg man hmm. nga xëy si fas sa kanam waa duma la laaj lii lu xew lan la am naa droit laaj wala ñi seetaan sax dinañ ne mais Mouhamed tey lan la lu xew question yooyu la mbirum transparence la du mbirum droit dugguñu ci mbirum droit. d'accord parce que léegi sax mbirum médecine la gën a jege que droit mbirum médecine la gën a jege parce que médecin bi rek moo mën na ne diw mii nanga ma ko rek. temps jeex na d'accord ngeen. nga hmm. léegi nag man li ma fi waxal yëpp garaawut Sénégalais yi ñoom xam nañ man ak yow. xamante ngeen aussi. kan man ak yow kan moo gën a pertinent sénégalais yi xam nañ. <laughs> xam nañ ne man ak yow kan gën a analyser aqulaay xëy na yow yaa ma gën a jàng nee nga da def ay recherche mais boo ma gën a jàngit ragaloo yàlla Ousmane Sonko ngay jaamu nangul xam man assumé naa de xoolal man Ousmane Sonko man la gën a respecté ka yow ndax daan na ne booy bee ne nee na man neexuma ko dinaa xam ni may doxaleeg moom mais sëriñ mais. wóorul ndax neex naa ko neexul ndax daf may faral chaque jour. te chaque jour mënu ma am dëgg. waaw d'accord kon yow bàyyi leen seen bopp xel une minute ñu ñëw ci mbiru Aziz Dabala. ak libération.